père Bourkhane macha allah sañse bi daa rafet père xanaa da ngay waajal combat bi le premier janvier tax nga sañse di xuuxal yenn gars yi dëkk Géejawaay wala lan. non euh, xam nga ñun nag wax dëgg yàlla tollootuñ sax fu ñuy fu ñuy sañse dañuy sol rek xale yi ñuy jox rek ñuy sol. waaw léegi euh, loolu nga wax dëgg la. combat la boo xam ne bi combat bi passé gis nga ñi génn làmb ji yëpp combat Boy Balla Gaye la ñuy wax combat boobu nag moo jaay boppam ndaxte dañu nekk ñaari mbër yoo xam ne dañoo am yaakaar ci ñoom seetaan spectacle xam nga làmb ay dama lay reek dama lay nangam nangam man bëgguma sax ñu koy wax dama bëgg rek ñu yox ni bés boobu dinañ wane spectacle bu bu rafet parce que loolu moo tax ñuy wax làmb bëri euh, intelligence en mouvement la kon il faut ñu xool ni ñu communiquer ci ni ñuy waxte waxee euh, làmb bañ di tudd ay ray wala dee wala yu mel noonu mais di wax ni dinaa génne ay technique wala dinaa def spectacle boo xamante ni dina neex nit ñi. mais ñu bari waa Géejawaay dañoo daan rek génn def attaque waaw waa Boy Niang dama gis ñu nekk seen ruq rek waxuñu defuñu dara lan la bis bi moo moom moo leen ëpp doole wala da ngeen a dëgmal bis boo xamante ne laajul wax lan la. xas jëm ci pays xas jóge fa moo ko di dem ci benn dëkk naan tay ma toj dëkk bi nekk ba toj dëkk bi di génn naan toj naa dëkk bi moo gën a wóor ballagay Gaye kuy bëreeg moom nga nekk salange nekk ku mel ne Boy xalaat ni war nga am titre bi mu am comme roi des arènes xalaat ni war nga am palmarès comme bi mu am li la war mooy dem na ji ñëw fas yéene def spectacle boo xam day neex nit ñëpp. Lirou Diane nee na bëggul kenn di wax Balla Gaye da ngay wax daañ saa jigéen. saa jigéen. ñaan Sadji gi. non liiru moom moom nitu ni ñëpp la moom lu mu wax noonu ci Balla Gaye loolu lay wax ci Boy Niang. combat premier janvier Balla Gaye ak Boy Niang dinañ bëri. le premier janvier incha allah dinañ bëri fii ci arène nationale incha allah. xeex wala bëri looy indi. tey <laughs> coli bi borom kaasu fonde attaqué na waa Géejawaay pare leen. moom père Bourkhane ndeysaan ma nga di def di daan doxam di dox ndànk-ndànk di tepp ndeysaan eh, Ibra